mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokk imaam Moctar Ndiaye moo dellu si leen laay biir ci waxtaan yi muy am a yéen saa su nekk mbokk yi nañu xam ni dëgmal nañu fukki fan yu mujj ci koor muy fukki fan yoo xam ni luñ doon def ci jaamu yàlla dañ ko war a gën a yokk dañu war a gën a góorgóorlu ci topp suñu boroom pour nu mën a am ci yiw yi nga xam ni sunu boroom diggee ko ci fukki fan yu mujj yi ndax bu leen fàtte ni fukki fan yu mujj yi ci la yàlla di goreel jaamam yëpp ci safara waaye ci fukki fan yu mujj yi tamit ci la jaamu yàlla bu gën a mag di Laylatul Qadr ci la nekk guddi googu nga xam ni moo gën ci mboolem guddi ci fukki fan yu mujj yi la nekk di guddi goo xam ne ci la yàlla wàcce alquranul karim waaye itam di guddi goo xam ne itam gu jar màggal la gu jar bàyyi xel la guddi googu di laylatul qadr sunu boroom ci alquranul karim moo ni laylatul qadr xayru min alfi mu ne guddi gii di laylatul qadr de moo gën junney weex boo ko doon nat nekk na ci diiru quatre-vingt-trois ans la mu ciy firndeel mooy jaamu yàlla ya ngay def ci guddi googu ëpp na jaamu yàlla yoo doon def ci diiru junney weer yoo xam ni du laylatul xadr kon guddi googu am na solo lool mbokk yi gu jar bàyyi xel la gu jar taxawe la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo ni képp koo xam ne taxawe nga guddi laylatul xadr ci di ko naafile ci di ci jaamu yàlla di ki topp yàlla nee na kooku lañ cey jële ci yow mooy yàlla jéggal la sa mboolem bàkkaar boo jëtaloon من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما taqaddam min bi képp koo xam ne taxawee nga guddi laylatul qadr ànd ngëm yàlla gu ma sëkk ak sàkku tuyaaba la nga cey jëlee mooy yàlla jéggal la sa mbooleem bàkkaar boo jiitaloon kon nag guddi gii di laylatul qadr guddi gu jar xel la te boroom xam-xam yëpp dëppoonu ni mi ngi ci fukki fan yu mujj yi moo tax bu naan kañ la laylatul qadr ñenn ñi ñu mi ngi ci fukki fan yu mujj yi te fa nu sukkandiku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fukki fan yu mujj yi daan teru daana ko dafay gën a góorgóorlu ci topp yàlla ànd ci ak njabootam yee leen ci jaamu yàlla ci taxawi guddi yooyu ci dikka naafila yéen boroom xam-xam yi dellu si nu ni guddi laylatul qadr mi ngi nekk ci guddi ñaar fukki fan ak juróom benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñaar muy nuyu di 26 au 27 te ñoom tam noo ngi sukkandiku ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ni man kaana mutaxarriha fa litaxarraha laylata sabi wal ishrin képp ku bëgg làmbu laytu xadr xam kañ la nee na làmb ko ca guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar mooy nuy di 26 au 27 loolu yëpp nag wute googu yëpp du dara lu dul rek xiirtal jaam bi ci fukki fan yu mujj yi mu gën a góorgóorlu moo tax ibnu xajar ci téeréem bu mag ba nuy wax fatuxul baar yi nee na gis-gis bi nga xam ni moo gën a siw ci kañ laylatul xadr nee na daay laylatul xadr daal mi ngi ci fukki fan yi nga xam yu impaire la mooy yu tool yi ci fukki fan yu mujj yi nee na mi ngi ci guddi yi nga xam ne guddi yu tool la ci fukki fan yu mujj yi te nee na sax mën na changer waaye lu ci mën am rek mooy fukki fan yu mujj yi rek jaam bi wara bañ a bàyyi loxoom ci jaamu yàlla lu mu doon def na gën a góorgóorlu ci fukki fan yi mujj yooyu yan xeeti jaamu yàlla la ñu digle nag ci guddi lay qadr la ñu ci guddi leelul qadr ci jaamu yàlla ba ci njëkk mooy taxawe guddi yi di ko julli mooy naafila yi xiyaamu layli yi la ngay naafila ci jàkka ja sax boo demee sa kër nga dolliwaat ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis ba ma jàng sànq mu ne képp koo xam ne taxawee nga guddi leel xadr ànd ngëm yàlla gu ma sëkk ak sàkku tuyaaba ci ay naafila ci jàng alquran la nga koy jëlee mooy yàlla jéggal la sa mbooleem bàkkaar boo jiitaloon ñaareel ba mooy di ñaan yàlla ci guddi kooku tàllal sa loxo di ñaan ndax ñaan mooy gànnaayu jullit te ñaan ba gën nag ci ñaan yi ñu jëlee ko ci sunu yaay Aïcha radiyallahu anha mu ni laaj naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaa rasulallah bu ma demee ba xam kañ mooy guddi leel qadr lan laa cay ñaan lan laa cay wax mu ni ko booy ñaan de na nga wax allahumma innaka afuwun tuhibbul afu anni allahumma innaka afuwun fa afu anni kon ñaan gi gën a siiw ci ñaanu laylatul qadr mooy ñaan gi allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa afu anni yow sama boroom yow yaay boroom jéggal te bëgg nga sa jaam buy jéggalu heure bu nekk kon jéggal ma ba ca topp digle nañu ci guddi gii di leelul xadr mooy di jàng alquranul karim ndax ku nekk xam na ni mooy anniversaire u alquran anniversaire u alquran mooy weeru rawat rawate nag ci guddi leelul xadr ci leen ko wàcce ndax ina anzalnaahu fii laylatin mubarak nee na téere bii di alquranul karim noonu ko wàcce ci guddi gii nga xam ne guddi gu barkeel la muy guddi leelul xadr kon jaam bi war na góorgóorlu ba yiw yi nga xam ne moo nekk ci guddi gi bañ koo romb benn yoon yeneen yàlla nangul yeneen yàlla defal tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.